هارون وعاصم بفارس وجبريل قادم ورز خيار حاضرون لفادليتي وللكون كل وهوان سعادة مولاي سعادة تخي غو خامني تخي غو خامني لا يشقى لا يشقى دودو تخي دي دودو دو تخا دي يو ابدا ابدا يو وان نخلو يوبو نكو مون ندا واي لان راه لو رك يوبو مو فيك مو في نك مو غوال بوبام مو غوال بوبام سبين مقامي سبين مقامي هفاني وهفاني حرمتي ما مرادي ما مرادي انا يوم نين غيس مون كون يوم سي راج مون نوي جابري الله يوم نين غيس رك يوم دان دي جاب مون سي راج جابري يين دك دور يالا نين رك امو جاب لين يين دك دور يالا نين ndax fi sey bu la fàggul lii. wala ndax sëriñ bi la fàggul lii. man koo fay. yow man ko koy fay. moo leen ko fay. déedéet man maa leen gërëm. déedéet waay man maa leen gërëm. di leen ñaanal. di leen ñaanal waaye yéen a moo la gërëm. waaye yéen a moo la gërëm. yéen a moo la ñaanal. kon yéen a ko la ñaanal de. ndax leen fi jëlee. ndax leen fi jëlee. indiw leen ko fi. am na dëgg la bi. am na dëgg la bi. te li nga ma jox li mu jeex. moom lépp mu jeex. sëriñ sëriñ. mu ne sëriñ. dafa laa jox ñaawurul jeex. dafa laa jox ñaawurul jeex. na ñaawul jeex nga ko jox. yow ñaawul jeex nga ko ah, jox ma ne ki laa jox lu jeex. mën ndax su fekkee laskaar la jox yaa ngi sikar yow yaa ngi sikar boo faatoo boo faatoo leeral sikar gi mën a leeral sikar gi mu ngi mu ngi fekk ci biir bàmmeel mu lay fekk sa biir bàmmeel yow yaa ngi moom mën a yaa leeral sikar gi ba yomal bës ba yomal bës yow léegi nga xam ak yow mën a leer gaa nga ànd ak yow rek yaa ngi moom yaa ngi moom ba romb siraat ba romb siraat leer gaa nga ànd ak yow leer gaa nga ànd ak yow yaa ngi moom yaa ngi moom ba duqalu jënd ba duqalu jënd leer gaa nga ànd ak yow leer gaa nga ànd ak yow taale bi li ñu demal suñu taale bi lan lañu defal ana mu ana ceeb ba ana ceeb ba ana xaay ba kon kon li wax li nga wax dëgg la man nga war ñaanal jërë ngeen jëf man loolu lay dégg mu daan def moom loolu la dégg mu daan def di bëggal taalibe yi su ma bàyyi sama sëriñ mu ne bàyyam sëriñ kaset yi may déglu kaset yi muy déglu fay wax fay wax digal taalibe yi man bu taalibe toog sama kanam mu ne moo si kanam daa leen bëggal daa leen bëggal moo tax wax jërëjëf jërëjëf la bu ngeen waay jërëjëf waay merci ci yàlla merbe bal mi alhamdulillah jërë ngeen هارون وعاصم بفارس وجبريل قادم ورز خيار حافرون لفاضليتي وللكون ذل وهوان